Babacar Fall la kàddu yu mu yëkkati képp ku dëgg ñor danga koy ñaawlu waxuma la sax bokk ci journaliste yi gën a mag ci Sénégal loolu kenn dootu ko werante waaye nag wolof nee na gémmiñ bu waxul yi xam ne Barthélémy Dias daf koo yëkkati kenn du ne jëruta tontu waaye nag saaga mënoon na cee ñàkk ndax éthique ak déontologie nanguwu ko yow Babacar Fall Papa Ngagne Ndiaye mi ñëpp ne jàngul journaliste mu am ci ay diplôme ma ne leen ma santaane daanaka mook zéro li waral coow dëgg nag mooy diggante taskatu xibaar politiciens yi ma ne leen képp ko ci amut fu ñu waaye di loola ndax ñi ëpp si yi seen intérêt rek la xool boo waxee lu leen rek ñu tàcc la boo waxee lu leen wut ñu tam dëmm waaye nag yow Babacar Fall journaliste si RFM bi weere ndax saaga si mbedd sax dañ koy ñaawlu rawatina saaga en direct si rajo nag laay xool ba Sénégal am na dëgg wala Sénégal am na yoon ndax correct ak sénéra war nañoo jël ay daan